Wallon basketball aventure s'arrête en phase de poule pour Soudan du Sud bim dafa nërmeelu devant Serbie 96 à 85 vraiment nak Serbie résumé les États-Unis bim moy terminé premier ci poule en quart de finale comme ni ko wiw sport fësale nak vraiment la logique a été respectée ci groupe C bobé en route vers l'or pour gagner li médaille d'or médaille d'or bobé jàpp leen bu baax li moy quart de finale dinañ ko tàmbali ci mardi bi Allemagne Grèce Serbie Australie France Canada Brésil États-Unis ñooy laale. wàllum athlétisme suñ gaynde bi yem nañu jàpp ne benn sport la ci médaille moom men mooy Luis François Mendy voilà spécial ci liin mooy 110 mètres e ñi ngi fësal ci kayitu xibaar yi nag moom dina débuté sérim nag à partir de 9h50 GMT ci dimanche bi nag voilà ñu ñaanal ko bu baax a baax li mu mën li mu mën a def nag pour qualifier liin mooy demi-finale mooy bokk mu bokk ci sérim boobee les trois premières voilà nag eh, bu ñu xoolee nag bu fekkee dina am repêchage mooy kan lii mooy trois meilleurs temps yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo daw ci série yi Marseille dafa mujj témboog Sunderland ci match xaritoo Paris saint mi nag jàpp leen def na benn contrat officiel à Julián Alvarez loolee lañ fësal de buy soxna ko ci Mercato xayma nañ ko nag moom mi nga xam mooy doomu argentin boobu bay lu mat 70 à 80 millions d'euros bu fekkee ñor na leen. Atlético Madrid bi bu jëm la ci dossier boobee ñoom amuñu benn temps bu ñuy perdre yitteel na leen ñoom nag proposé nañ benn pour benn benn somme bu 60 millions d'euros et que Man City moomee dala na nag ndawu Chelsea bi nga xam ne mooy Ryan Maikaido bi atum 2008 la juddu Bruno Guimaraes moom foofee ca Newcastle actuellement nag moom lañ jox li nga xam mooy capitaine bi ndax xam nañu jour bu am solo la am na club yu ko bëgg et bëgg nañ ko gàdd nag ba tax na vraiment kontaan na lool kat mu tàmbale saison bi ñu jox ko kat capitaine bi. Enzo Fernandez dellu war na ci entraînement yi club am biir mooy Chelsea ginnaaw ba mu fësalee nag bataaxal jéggalu ay coéquipier am ñu jéggal ko ak nag seen sport mu ne milieu terrain boobee ma ngay dox ca Man City di Calvin Phillips moom nag club boobee di Galatasaray yi te woon nañ ko lool. Crescencio Somerville doomu néerlandais boobee quitté na nag club bi nga xam mooy Leeds United utali ca West Ham. moom léegi fësal na ne xaatim na contrat buy dem ba juin 2029 montant transfert bi jàpp leen bu baax xayma ne ko ci fanweer ci ay millions ak i bonus. Bournemouth nee nañ noppiw ñu naan dañuy jaay kii mooy Dominique Solanke ak lu mënti xew jàpp leen bu baax Tottenham bu fekkee dafa nekk di proposé ñoom kat duñ dégg lu nu mel. waaw ci kaw ñu teg loolee di clause libératoire bi ñoom yaakaaruñu ne voilà dinañ ko teg ci attaque boobee waaye ak lu manti am c'est une de parler club bi stratégie yooyu la ñuy doxal waaye nag xam nga ne closam biir mooy 65 millions d'euros Tottenham bés bu ko tegee lépp mën jàppandi ci kaw aussi joueur bi mën a nangu buy soxandikoo ci Time Sport et que lii nga xam ne moom mooy big six bi nga xam ne ma nga ca Angleterre kon ñoom fës nañ seen ay joueurs joueurs yi ñu am Chelsea de am na 41 joueurs Liverpool fanweer de même que Tottenham Man City 29 Manchester United 28 Arsenal nag moo ci gën a néewle ak 24 joueurs buy soxandikoo ci transfert market Rome nee na ñi ngi sàkku de képp ku bëgg tamit Abraham di nga teg au moins vingt et un millions dollars seen ab table ni ko William dafa dàq offre bi Paris tegal nañ ko bu ko defee ñu mën koo dalal ëllëgam nag ci ailier espagnol boobee sport moo fësal xibaar bii de mooy que ñaari option la am soit mu utali ci wala boog soit mu desandi ci Athletic Bilbao wéyale contrat am wala boog mu dem ca Barcelone. Immobile nim tàmbalee ay joganteem foofa ca Besiktas mucc na ayib moom miin mooy ancien zobu la Lazio bi seen super coupe la doon amal de face au club Galatasaray bi nga ne Muslera fa lay doxo ñu daan leen juróomi bal ci dara kon ginnaaw gi ñoom bobe mucc na ayib ndax ci juróomi bal yooyu moo lakk caaxi ñaar yoon. Juventus de Turin seen course boobee di Thiago Motta fësal na ne voilà nag mi ngi coono tàqalikoo ak huit jours yi nga xam ne jàppale nag bokkuñu ci ay plan ci ñooñu ñu mën cee lim ko ci mën ni Szczęsny Kostic Arthur un certain Chiesa bi nga xam ne jàpp ne nañu koy waxtaanee bu baax buñ soxndikoo ci Gazzetta dello Sport leer ba leer am na ay club yi nga xam ne bëgg nañ ko nag waaye moom mi nga xam ne mooy doomu italien boobee. pour l'instant nag benn offre dongkat lañ jotagul ci moom moomee di Chiesa club bi ko def nag moom mooy AS Rome waaye liñ teg dafa xaw new ndax ñu ngi fësal ne au moins képp ku ko bëgg nag xayma nañ ko ci lu mat vingt cinq à trente millions. d'euros ñu ngi fësal ne moom meen mooy Chiesa na contrat am atum 2025 la war jeex kon bu jeexee nag dina fa quitter librement Corriere dello Sport fësal na ne kat jàpp club bi nga xam ne moom mooy Inter ñoom kat ñu ngi taaxilu de bés bu contrat am jeexee nag jàppale ñoom dinañ ko dalal gratuitement comme ni nga defee ak yenn seen i zone et que vraiment mi ngi marché ndax ñoom ci saison yu génn yi dañuy lakkite ak ginnaaw gi ba ñu gàddee scudetto bi. Napoli kooku di Osimhen ma nga woon ca tribune ba moom nag jàpp leen club boobee dafa nekk ci yoonu jaay ko umpul kenn ek ñu ngi fësal ne club bi mu ñëw gën a jege nag di def pression pour mën ko dalal nag mooy Paris Saint-Germain waaye De Laurentiis moom il est dur en affaire comme ni koy waxee wala nag convaincre ko du yomb dara waaye li leer ba leer kooku di doomu Nigéria bi nag voilà desineem ca Napoli leerul. ek kooke di Antonio Conte mi ngi xalaat nag ëllëgu club boobee ci attaque ba ka fay doxal ek ki ñu yaakaar mooy kooke di Lukaku bi am xam na ko bu baax kon avant centre Belgique boobee xam ngeen ne moom nekk na jafe-jafe di ak club am boobee di Chelsea nag ndax salaire sax moo xaw a takku lool ñu koy fay 19,8 millions d'euros par an. actuellement Milan mi ngi foofee ci Amérique du Nord di amal seen ay wàccaay loolee ñu naan pré-saison ñi ngi fësal ne voilà yéen seen jour yu am solo kat jàppaleen ñëw nañ ci entraînement yi actuellement nag jàppaleen dañoo beru ndax ñoom dañoo dellu ci vacances pour léegi nekk à 100 pour cent nag préparateur physique bi deneen leen topp topp bu baax a baax ak la nga xam ne moo ci aju kookee di Mike Maignan Théo Hernandez wala Hollande bi ngeen moom mooy Tidiane yi ñoom ñëpp dem nañ ba ci demi-finale bi ci liir mooy Euro bi kon voilà nag xel nangu na ko ñu bàyyi ñu dallu bu ko defee. ci saison bii laata ñuy soobu ñu nekk à 100 pour cent et que Milan moomee nag benn yéene lañu am mooy kookee di Théo Hernandez mën na xaatimal contrat ndax contrat bi këlëkkale club bu Rossoneri boobee dafa war a ji atum 2026 de même que coéquipier bi nga xam ne mooy Mike Maignan. léegi lépp yem ba ne de kooku di Alexandre Sorloth quitté na Villarreal signé ci Atlético Madrid montant transfert bi xayma nekk ci fanweer ci ay millions juróom yi Marcus Lund ñu ngi fësal ne voilà attaquant norvégien boobe ci saison bi génn ci fanweer ak ñeenti machine doxal di am na 23 bi amal 6 passes décisives ñu wéy la xibaar yi dootu moon ginnaaw gi ba ñu jaayee ful kuluk foofee ca West Ham ngi wër kan moo koy utu nag eka du keneen ku doomu almaa benn moom mooy Maximilian Bauer Maximilian bo boobee jàpp ne révélation dëgg na nag ci Bundesliga bi nga xam ne jàpp leen génn nañ ci mooy que saison 2023 2024 mu wane boppam dëgg jàpp leen bu baax nag moom jotoon na dugal lu mat 16 buts ci 33 matchs yi doxal ak clubam boobee di Hoffenheim waaye nag bu fekkee yitteel na leen nag jàpp ne dinañ teg lii mooy close bi may bu ñu soxandikoo ci Bild de xayma nañ ko ci 30 millions. Olympique Lyonnais mooy mujjee daan Union Berlin jàpp leen club allemand boobee ñeenti bal ci dara kon dañoo doxantu dëgg seen kaw nag Moussa Niakhaté mu participer ci belle victoire boobee voilà face au club allemand kon défenseur bi sax lañ fësal mooy que dañ ko titularisé mu doxal solide dans la défense comme d'habitude Pape Daouda Diong moom dafa duggal ak club bam benn mooy Strasbourg ak club allemand bi doon nañu amal match xaritoo muy Fribourg jàppaleen nag moom miim ñëw na ci club boobee ci été bi jàppaleen moom miim ma ngay bawoo ci académie Darou Salaam kon dugal na bii bu njëkk jour bi nga xam ne jàppaleen bu baax football am na lool ci moom yaakaar waaye nag nooteel bi baax na mu dugal de waaye malheureusement kat équipe am boobee dañoo mujj lajj nag devant Fribourg ñetti bal ci ñaar. beneen gaynde bu wone boppam mooy Bamba Dieng bi nga xam ne gën ngeen ko dégg waaye jàppale mi ngi ak clubam boobee di Lorient actuellement nag ñu ngi ci Ligue 2 française bi jàpp ne kon dafay desandi kon moom dugal na à la cinquante-neuvième minute comme ni nga ko fasile ñu daan nag en jeu bi am dafa yéeg ci Ligue 1 bi nag ek c'était Ibrahima ñaan fa lay doxal sax ñu daan leen ñaari bal ci benn Racing Club de Lens ñoom kat dañoo accroché club bi mooy Bayer Leverkusen ñu tenil ànd sax ñu temboo ñaari bal ci ñaar Malang Sarr bi nga xam jàpp leen Chelsea ginnaaw ba mu dakkalee kontoraam doxal na foofee de waaye vraiment nag il a été solide comme kayitu xibaar yu bëri nuñ ko fësalee wala nag laaj bi samp mooy est-ce que kookee wala nag des na ko bàyyi xel. ndax Sénégal mën naa ne bii national seen apport am na solo lool waaye nag lu ci mën di am am xam nga ne Aliou Cissé ci fànn boobee ci xarañ la ndax voilà pas mal de ñëw nañ fii c'est grâce à lui. foofee ca Portugal jàppaleen bu baax nag Porto mooy mujjee na Sporting ci seen super coupe boobee ñeenti bal ci ñett kon ñu ngi fësal club boobee léegi mooy doon club bi ëpp ay rayon nag foofee ca Portugal ndax am na 86 trophées Benfica mooy ñaari avec 85 et que Sporting bi mooy ñetteel avec 56 trophées. Jeux olympique football ci wàllum jigéen kon affiche su demi-finale nii la tëddee nag ñu ndar ko tàmbali si août Brésil contre Espagne États-Unis mooy laale ak waa Allemagne. waxoon nañ ko ci xibaar yu wees ëllëg léegi nga koy wàjjeel jàpp leen bu baax ñaari ndaw la yem leen nag war nañ leen xel bu baax a baax kookee di Nobel Mendy ma nga daw ca Betis bi mu am fukkeet ak juróom-ñeent de même que certain El Hadji Malick Diop bi xam ne fasaloon naa ko moom dafa jot a lakk caax yi bii bu rëy sax mu am aussi même nombre d'années que kookee di Nobel Mendy kon ñoom ñaar ñëpp ay ratalu gauche yu xarañ lañ amal kon yenn jours yi ko ci foo fekkee Milan wàcc nañ ko ci équipe U23 bi moom mi nga xam ne nee na kat Premier League dongu de la bëgg am na club turki bu ko bëggoon waaye di leer bale ancien Abdoulaye Diallo bi xam ne aussi ma ngay doxal Abdou Diallo ma ngay doxal ca Qatar est-ce que aussi yanu na maanaa ñu koy woolu kon taxaw ay taxaw seetlu na nag balaa nag mën naa ne luñ gën a xuus comme que lii mooy éliminatoire yu kan bi voilà c'est presque dans un mois comme ni nga ko fas ndax mois de septembre la kon li leer ba leer mooy que voilà xam naa Aliou Sow liggéey bu baax a baax waaye nag na may booy seen sàndakat ci joŋante yi kan yooyu kat nga mën a testé kat yéen cay zo rawatina ñaar ñi ma lim mooy Nobel Mendy ak El Hadji Malick Diouf kon cant ak ngërëm ñeenti leen dinañ jaajëfal ci yeneen xibaar sur le sport 221.